jëlaat yeneen deux kilomètres ci littoral bi yóbbu ko Tivaouane euh, Sangalkam yooyu la ñuy xeex loolu nag fekk li ñu bëgg amuñu ko nañu xam ne la projet de Macky Sall du jàll Malika nag dañu pare suude wu comme benn nit bañuñu ci dara luñ ci bañul nag bañuñu ko ci dañ ma mënuñu comprendre ñu nekk commune de Malika mu am quatorze conseillers municipaux ñii dëkk di yeewoo territoire yëmbal dia di yeewoo territoire Kër Massar ñuy siège suñu conseil municipal te en plus boo demee yëmbal ak Kër doo fekk benn doomu Malika buy siège seen conseil municipal seen ay ASC yi Malika la ñuy fubale fii la ñuy jotee subvention seen néew yi fii lañ koy indi te sax dama naan dama naan benn benn benn benn dëkk la woon benn famille la woon ñu ñëw couper le tissu social loolu nag la ñuy xeex doo mën a fekk ñaari famille mag rak nga bëgg leen xàjjale ni kii yëmbal noor la kii Malika la dañu bëgg ñu ni ñu xam ni Malika mu ngi commencé talibu xonq mu ngi yam MTWA loolu ñu bëgg nag fekk amuñu ko sunu xeex bi ñu nekk duñ ci jóge jaral nañ sunu bakkan jaral nañu dugg kaso ànd ànd nañu ak sunu yaay yi xeex bi xeex bi bi nag xeex wax nag xeex bi xeex bi weetuñu ci dañ dañ ci ànd ak sunuy ci ak sunu baay yi ànd ak mag ànd ak sunuy rak di wax ni toute la population malickoise dañoo engagé wu déterminé wu pour euh, am gain de cause ci li ñuy xeex ndax xeex bi bu noble la man nak amu ci cadre mais damay bay ñi nga xamante ni ñooy les impactés direct ñu waxal seen bop kon damay wo ku melni euh, euh, délégué de quartier le président de délégué de quartier mu ni Jules Badji mom dañ ni ko yëmbal noor la dëkk commencé nga nek le président de délégué de quartier de Malika ba ba bëgg dëkk yëmbal noor lool c'est impossible loolu duñ ko nangoon président kay nga jël sa kàddu waxal sa bop merci beaucoup. ma ngi tudd Souleymane Badji. nekk président des délégués de quartier de Malika yi wax nag ci turu délégué de quartier yëpp ak notable di xamal ni lii nga xamante ni moom la askan bi di laaj sunu wareef la ñu laaj ko askan bi ñu laaj ko président Macky Sall muy tali bu xonk ak m damay wax ni lépp li nga xamante ni moo nekk yëmbal noor commune u Malika moko fa def population Malika bi ñoko fa def muy école Malika centre récepteur tay ñu tuddee ko école Mahfouz Badji population Malika bi ñoko sam c'est la deuxième école primaire de Malika centre polyvalent bi commune u Malika bi ñoko fa sanc parce que ñom ñoo joxé rembourser terrain ñom ñoo joxé caution kon damay wax ni xalé yi ak askan bi jeunesse bi li ñuy laaj ak mag ñi ak njël lolu suñu waréf la damay wax ni la vie ou la mort

jox nañ ko kon nag monsieur le président ñu ngi lay xamal ni fi ñu toll nii sës nañu amatul dellu ginnaaw kaso yi fees wala armée li fees foofu lañ toll. liñ ci joué gaaj nañu Malika gaaj bu méttee méttee méttee ndaxte c'est des gens patente yoo xamante ni dafay dem yëmbal ndoor mbaa mu dem Kër Massar léeg-léeg sa ay xeex da ciy am. ay xeex da ciy am donc loolu yàgg nañ ko réclamer. investissement yi ñuy def yëpp Malika ñoo ko fay def Malika la ñuy defee la ñuy suulee seen i néew ñoom ñëpp muy ñaari communes yi ñu séq kon damay wax ni liñ ñu gaañ mu mënuñu ko sax wax mais bu ñu toogoon ak président Macky Sall ci benn salle dinañu mën a déterminer lépp li nga xamante ni moom la ñu yàqal waa Malika. kon ñu ngi lancer un appel au président Macky Sall que dafa jaadu ñu toog ak moom bu bañ am benn intermédiaire. kon da dafa politique le dafa politique la pure. te bii di ñëw moo nar a gën a pire. 96. 96 bi ñu koy def ay dañoo ne ay techniciens c'est pas des techniciens c'est des politiciens ñoo ko def pour régler seen problème personnel. léegi nag ñun nag Macky Sall dafa ñëw mu ne dafay corriger ay incohérences mais lan moo tax boolewu ci Malika na ci boole Malika incohérence yi Malika Omar Gueye mi nga xam ne mooy le ministre tutelle

Omar Gueye et son ami Moustapha Mbeng il sait très bien ce qui se passe ici parce que bañ koy def ñoom ñoo concerté wu Il biir indi un document pour ñu voter ko ñun li ñu concerné c'était sous suuf montagne 10 chefs de quartier 7 conseils municipal ñu avons foofu ak benn centre de vote Nous yeewoo foofu lépp li fa am Malika def ko te ñu xëy xëy nañu dañ leen di tànk takk mais balaa ngay def li nga xam pour population bi da ngay consulter la population Omar Gueye nag mënul rectifier les incohérences yi nga xam ne dundoon en 2002 tey mu ñëwaat bañal waa Malika ñu rectifier les euh, incohérences de 96 donc loolu moo ñu pour nous, delloo li au niveau du littoral au niveau de Malika montagne au niveau de Malika sud donc nous régler la situation. Je voulais faire une déclaration et m'adresser au président de la République du Sénégal M. Macky Sall. On ne peut pas comprendre monsieur le président que vous nous adressiez une correspondance dans laquelle vous nous dites que vous voulez corriger des incohérences administratives et que Malika s'arrête au niveau euh, de la route de, la cité Sonatel. On ne peut pas comprendre que Malika soit limité au niveau de Mobus et que Malika s'étendait jusqu'à presque aux frontières de Yombol Nord. Toutes, les deux parties qui, qui sont au niveau de Yombol Nord et qui sont au niveau de Kermassar, nous voudrons, Monsieur le Président, que vous ne les, que vous ne les rendiez. Parce que 14 conseillers municipaux délibèrent pour Malika. Et ces 14 conseillers-là habitent où dans le territoire de Nord ou dans le territoire de Kermassar. Ça, c'est une incohérence. On ne peut pas comprendre que le président des délégués de quartier, qui est le président de tous les délégués de quartier de Malika, habite euh, administrativement au niveau de Nord et qu'il soit le délégué de quartier de tous les délégués de quartier de Malika. Ça, c'est une incohérence. On ne peut pas comprendre qu'une école qui porte le nom de Malika Sandre Récepteur soit dans le territoire de Yumbal Nord et qu'il porte le nom de Malik Sandre Récepteur. On ne peut pas comprendre, Monsieur le Président, qu'un centre de vote qui est dans le territoire de, Kermassar, euh, que ce suffrages soit décompté au niveau du suffrage de, de Malika. Ça, c'est des incohérences notoires, Monsieur le Président, que, nous voulons porter à votre connaissance et qu'on veuille que vous nous les corrigiez. Les ASC. Les ASC reçoivent leur subvention au niveau du conseil municipal de Malika. C'est des incohérences, monsieur le président, que nous voudrions porter à votre connaissance et que, nous voudrions que, vous nous les corrigiez, monsieur le président. Le combat continue Le combat continue, monsieur le président. Parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des républicains. Nous avons dit oui pour la départementalisation, mais non pour ces incohérences non corrigées et que nous voulons, Monsieur le Président, que nos détenus qui sont actuellement entre les mailles de, la police soient libérés. Immédiatement. Nous sommes en tenue blanche, nous avons reçu des ordres du marabout pour qu'on porte des tenues, pour qu'on porte des tenues blanches et qu'on vienne en paix et que nos, nos, nos, nos pères soient détenus au niveau, au niveau de la police. Nous voulons qu'ils soient libérés le plus rapidement possible.